ha Fall mii lañ tuddee bisub sikuru laay bii dégg ngeen ko dégg ngeen ko ah dégg ngeen ko. waaw waaw am loolu ab ab ab yar la bu rëy ci man. waaw kenn ku yemati si ma kenn ku yemati si man. may wax naka sa nuru noona. ba may def naka sa nuru noona. yan wa dal na ma. samay rek samay samay rek ñoo ko def. samay rek ñoo bokkal bàyyi. ñoo tey def ko. لي أم خلا له نهجله له لكن من سيدا من تاي أمنا أبيني يني يني تاي لو من سلو تراغ لو انت خبني من مي لي بغل نما عندنا شي ما دفكو واي ساي ساي ساي يل ساي يل ساي يل دا دمو دا بما دمي بجي بجي بجي بجي أم لما دل أم لما دل لما دل yóbbu la ma naroon ci bis bi loolu ah, laa tey tey waa tey jii ma doon doon perteel beneen bi. waaw waaw. seen ma seen ma maa ngi amoon seen maa ngi amoon seen maa. Faye Fadi. waaw. Cheikh Moussa ngi nuyoo. di jotali kàddu yoo xam ni. Ah. mi ngi bàyyi koo ci jëwriñ Cheikh Ibra Fall ji. ji ñu xam ni moom la jàpp ni. moo tax ngeen def tur yàlla. moo tax ngeen def tur yàlla wii. waaye loolu waxin la. ndax loolu am waxin la. seen maam la tax ngeen seen a tax. ñu di ko def yéen a moom wax ji. waaye ba tey. nee na waaye ba tey. kon moo ko moom. kon moo ko moom de. ndax mooy seen maam. ndax mooy seen maam. mooy seen baay. mooy seen baay. mooy seen sëriñ. mooy seenu sëriñ. mooy seen lépp. mooy seen lépp. Ah, fi ne ma nga ca wàlla fi ne ma nga ca wàllaa. waaye soo xaroon xol ba. waaye boo xaroon xol ba. ma nga ñee lool ma nga ñee lool doom yi. ma nga ñee lool doomam yi. ndax bëggoon mën a yëkkati kaw. ndax bëggoon a mën a yëkkati ca kaw. te murid yi na yëkkati ko moom. te yi nag yëkkati ca kaw. ak may la ak may la. bu doon lu ñuy jaayee. bu doon lu ñuy jaayee. ni lii ne lii seen maam. ni lii ne fi seen maam. xam nga ñu fi toogal léegi. am ñu naan sëñ Mbàkke. am ñu naan dun may la am na loo xam ne bu ñu waxee woon. te yërëmtalu. te yërëmtaluwul. te yërëmtalu te kon kon Baye Fall dina leen ñu tàbbi ci biir. ndax ñi man lii. ndax ñi man lii. la seen maam wuy si. la seen maam wuy si. muy woote Serigne seen jureel. yéen da ngeen a jaay seen jureel. jëndee ko. lii tax am fii dara. moo leen tax a man lii. ku ko. te yéen seen tur yàlla. moo war a dem ci télé ba. moo war dem ci télé ba. rajo ya. téléphone ya téléphone ya ndax daa daaba ji taxawoon ci buntu kër ba ndax fi ne daaba ji taxawoon ci buntu kër ba noonu ñu ñu leen daa daa daa sëb aw nag daa sëb aw nag ñii duñu faal ñii duñu faal sax kenn du jug kenn du jug waaye bu ñu buggee fi buggee la waaye bu ñu buggee la mi nee bu sëfi am na duñ ko faale. waaye bu ne bukki na sëf nag. waaye bu nu woon bukki na sëf. gaa yu bari daan génn. gaa yu bari mel ni sëñ Mbàkke Faal doon génn. ndax ndax bukki na sëf. ndax bukki na sëf ji moom. seen seen tur yàlla bi. fi ne seen tur yàlla bi. bu nee bu nee waatale. bu nee waatale bi. sëñ Cheikh Fall si kër. sëñ Cheikh Ibrahima Fall ñëw na si kër. ñëpp ko seetaan. ñëpp dinañ ko seetaan tey. su nee noo su nee noo koy seetaan noo nooy nooy si kër. bu nee noo ngay si kër. da ngay gis waajoo xam ni. da ngay gis waajoo xam ni. moom seetaanu wu tur yàlla wa. moom seetaanu wu tur yàlla wa. xam nga lu muy seetaan. xam nga lu muy seetaan. yéen ñi donc yéen ñi rek. yéen a jaral nit ñi lu nekk. yàlla ngeen yàgg tur yàlla. yàlla ngeen yàgg tur yàlla. dafa wax ci lamb la xaw ma. nee xaw ma loolu wax ci lamb la xaw ma. ndax yéen ci tur yàlla ngeen judd. ndax yéen ci tudd yàlla ngeen judd kon kon nag yéen a ko moom. kon nag yéen a ko moom. ndax seen maam lañ ko moomale. ndax seen maam lañ ko moomale. ñeneen ñi gën a ñee nag ci seen xol. nee na fi mu ne ñeneen gën a ñee ci seen xol. su fekkee benn am na ci. su fekkee benn am na ci. am ñaare la am ñaare la ci. xam mën naa. nee na fi ne moom mi mën na. waaye damaa mën di yëkkati. waaye daa mën di yëkkati nag. sama sama sëriñ bi wax sëñ seen ndigal. nee na sama sëriñ ba ni wax sëñ seen ndigal. gis naa tur yàlla am wax. gis na tur yàlla am wax. wax ju naqari lay wax. wax ju naqari lay wax. ba ba naqari. man tur yàlla wér na. nee tur yàlla ba de wér na. waaye yëkkati rek ngay jël. waaye yëkkati rek moom. ah, ah sëñ Cheikh Baye góor da ngay xool nag ay saa lay doon nag. mais góor mii. Eh, li ko dal li bu waxul woon na fi ne mën naa faatu ci guddi gi. aw mat la. aw mat la wu ne ci moom. aw mat nag bu nekkee ci biir. aw mat nag bu nekkee ci biir. li fekk génnul. li fekk génnul. borom du am jàmm. fi ne bu waxul woon day loru. mën naa loru mën naa loru fi mu toog. waaye dañ ko bàyyi ba mu fët fët ba ni jekk fët rek bamba jàngoo. kii wax moom mën naa wax ak yéen yéen a bokk bàyyi bàjjenam jur ko seen bàjjen jur ko mën naa wax ak yéen. ngeen ku nekk seen mbokk la fa lool fees dell kay moom moo moo tax moo tax mu sigal ndax moom moo nekk ku doon ci yéen dara ku nekk nee na moom ku doon ci yéen dara ku ne xolam seet na ci yéen xolam na ci de te bala ngeen xam te bala ngeen xam loolu ah, ni ngeen ko waxee nii ngeen ko doon waxee yéen du ngeen noppi yéen du ngeen noppi bu ngeen waxee ci kaw ñu bu ngeen ci kaw ñu yéen a nga ca bu ngeen waxul ci bu ngeen waxul ca kawit yéen a nga yelu yéen a nga yelu waaye yëkkati bii nag waaye yëkkati bii nag te leen ko fépp daaru bay defal TV jël na ko ban xam ne yéen a mooy dàqal ñëpp nee na mooy dàqal ñëpp yàlla ngeen fi gën a dund nag yàlla ngeen gën a wér yàlla ngeen gën yàlla ngeen gën a mucc yàlla ngeen gën a jub yàlla ngeen gën a jub nag li ngeen bëgg yàlla ngeen ko am nee na seen mag ju baax jee. te ne xel yi noonu xel ngeen def ko muy jëriñ. ngeen def ko nee moom li mu wutoon bëggoon. joxeel ko ko. mu dellu yónni rakkam ju baax ji. jox ko lii ko. na ko jëwriñam yii. nan ci tàngal. xam nga tàngal daa gën a waaye moom dinañ ko jox rek. am na ku may day léegi de ni ma lu fi mën a ñëw daal ginnaaw sëñ bi indi na fi lépp te lépp ñun la war defaa nañ ko addi Seex Faal mu ñaanal leen ak wér na ku ma léegi de defaa ko addi Seex Faal jox ko seen baay waaw ba xam ah rek. Eh. waaw loolu gën a sakkan xam naa jëriñ jëriñ seex bàyyi góor. nee jëriñ ah, mu ni. déggulee daa ñëw ni ko. daa ñëw ni ko. moom la mu bëggoon mooy. nee na moom la mu bëggoon mooy. Ah, amoon ay mbanay nag. amoon ay mbanay nag. mbaay gëleem. mbaay mbanay gëleem. togg ko jox ko baay Fall yii. loolu Cheikh Baye Góor wax de. moom la feese fii deel defi ne. nee na fi ne ba tey aw matama. daa am ndox goo xam ne nee daa am ndox goo xam nag danoo dal. baa moo leen dal. dal. du wér nag. nee na du wér de. ku yóbbu seef bàyyi góor ñeme ko. li fekk ngay dee. da koy yóbbaale. ndokk nee na sa gosa ci raw yaag diw. ndof gi sa gosa ci raw yaag kooka. ndokk xamante ngeen. ndokk.